wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sante yàlla subhaanahu wa taala ñaan ci yonent yàlla muhammad sallallahu ñu ngi wax mbokki jullit yëpp assalaamu aleykum wa rahmatullah ngi nekk ci téere bu màgg ñuy wax faakihatu tullaab ñu koy wax jaamiul maraam tabaarakallahu maam Cheikh Al Hadj Malick dajale ci xam-xam yu mën a jariñ taalibe ci àdduna ak àllaaxiram ñu toll ci baabu maa yaxjubu maa yaxjubu an irfaani ahlillah aw an bunte bu yéeme la mooy gannaaw bi ñu weesoo dars bii weesu te muy uh, teggin yi taalibe war a ànd ak sëriñam tey nag sëriñ bi mu ngi jàngale maanaam yi nga xam ne nii ay éventualité yu mën a yiir nit la ci xam nitu yàlla yi dëgg-dëgg te ku ne xam ne ne nitu yàlla yi dañuy nëbbu kuy nëbbu nag bépp condition boo mën a teg pour lu la nëbb rek di nga ko di di nga ci di nga jël loolu def ko mu mel ni nit kuñ doon wër ci néeg mu jël mbàjjami sàngoo lu ne mu dugg ci ngir bëgg ku ku bañ a xam ne mu ngi ci nit bi nitu yàlla yi yàlla dafa def ci ñoom lumière boo xam ne bu ñu sañoon kenn du ko yëg kenn du leen xam kenn du leen découvrir ndax ñu mën a dund paisiblement ba wuyu ju seen borom te duñ am benn jafe-jafe ku mel noonu nag euh, tabaarakallahu euh, bàyyi ko xel wala xam yooyu dina la dimbali ba nitu yàlla lu mu wax rek ba ne day nëbbu yow nga teel a xam loolu pour tabaarakallahu mu bañ bañ bañ a tendre mu bañ la tendre piège ba nga ciy tàbbi sëriñ bi ne ama alladi yaxjubu maan irfaani ahli lilahi saadati al ayaani fa huwa shuhudu fa huwa shuhudun minhum almumaathala kada almucaasaratu walmucaadala mu ne ama alladi ndaal nag na nga xam ne li nga xam ne yax jubu dafay muur nit dafay yiiraate an irfaani ci xam ahlil ilaahi nit yàlla yi léeg-léeg nga dégg sàggan ku wax ne nitu yàlla yi amatuñu léegi nitu yàlla yi juddootuñu parce que mag ñi bi àdduna bi yàqoo loolu tax wali amatul loolu mooy xijaab bi gën a rëy xam naa suñ jamono ji ndax ki gëm ne wali amatul moom kooku wér na ne moom du leen wuti ji du leen seetati ndax moom jàpp na ne amuñu loolu mooy xijaab bi gën a rëy waaye bokk na ci xijaab yi muur nitu yàlla yi ahlil ilaahi saadatil ayaani xaj maa gis nga ni mu leen tag tàggee ne ñoom rek ñoom ñooy sang yi ñoom ñooy gaay ñoom ñooy kilifa yi dëgg-dëgg bi ci jiitu mooy shuhudun ngay ngay xool minhum ci ñoom almumaasala nirale nga ut daal ay critère ut yoo critères yoo teg Euh, dix points wala vingt point day mel nii day mel nii day mel nii day mel nii day mel nii jël point yooyu nag toog di xool ku mu nirool wala bokk na ci la nga koy niraleeg sa bopp yow naan waaw diw baag moom ñoo niroo kon mënul doon wëliyu te duma ko doon kadanaka noonu xijaab la itam almuasaratu dund ak moom diw sama contemporain la ñoo bokk jamono ndax ñun koo ci ne Seydi Abdul Qadir Jilaani waliyu la du ci teg bat koo ci ne imam Junayd waliyu la du ci teg bat mais say contemporain yi nga dundandool mu leer ne sax li nga xam ci ñoom xamoo ko ci kilifa yooyu nga nangul ñoom doo leen sa a nangul wal mu aadala ak di tolloonteeg moom naan kii maag moom ñoo bokk benn année bu ñu euh, juddoo maak moom ñoo bokk benn euh, terrain bu ñu daan fubale loolu mooy mu aadala di tollale sa bopp ak moom loolu xijaab la te defe naa gën na nekk xijaab jamono jii ci senegal Sénégal ka rabti awsaafihimu waaye wala ngay takk seen melokaan bi fii ma zakar ci li nga xam ne tudd nañ ko fi kut fii kut bihim mu allifun mu allifuuna fil sëriñ si bind téere yi ñoom it dañoo def erreur bu rëy parce que dañoo bind ay téere ba pare jàngale fa critères yoo xam ne noonu la wëli yu war a mel te loolu seen bindi bopp la ndax yàlla at taqwa la seede ci ñoom ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanu lahumul bushra fi lxayaati dunia uh, wa fi l in aw mu waxaat ne ne in awliyauhu illa almuttaqun yàlla neen samay wëli yu mooy ñi ragal yàlla te ku ne xam ne ne mbiru ragal yàlla du mbir mu ñuy gis léegi nag sëriñ si bind ay téere di wax ay critères yoo xam ne koo ko gis ci ñoom nee nañ wëli yu noonu lañuy mel te loolu xëy na lañ wax doonte dëgg la mais mën naa valable ci ñëpp rawatina sax ku ñuy seet bu ñu indee ay critères ne nii lañ lay seete mu ngi mel ni benn waa joo xam ne dañ ko doon wër ci réew mi ñu joxe ay critères ne nii la bindoo nii la watoo lii lay sol nii la mel loolu bu ko waaja yégi critères yañ fa teg yëpp mën naa changer loolu ba nga xam di ko wër ba sonn doo ko gis loolu piège boobu moo dal ñooñu bind ay téere yow nag nga jàng téere yooyu jël nag yooyu def ko ci benn carnet toog di xaar ku remplir yooyu boo watul di nga dund ba dee te doo gis ku ko remplir moo tax mu ne aw karabte awsafihim comme takk seeni melokaan tënk ko rek bi ma zakar ci li nga xam tudd na ko mu allifuuna sëriñ si bind fil xabar ci xam-xam fii kut bi im ci seen téere nga ne man daal vraiment jàng naa ba gis critère nit yàlla yi maa ngi toog pour xaar ku mel noonu doo ko ma a gis ndax même ñaka jàkka mel sax bu ñu toogee ak yow duñ la wan melokaan boobu te loolu moo daloon tabaarakallahu benn benn xissa bu ñuy nettali benn nit yàlla boo xam ne dafa duggoon tabaarakallahu ci benn boutique benn benn benn waajoo xam ne dafa baax lool ne dafa bëgg recenser nitu yàlla yi nga xam ne xam na leen loolu daal moo ne ci xelam daf leen bëgg recenser mu dugg nag ci benn boutique doon jënd foofu kaye tabaarakallahu pour mën a bind ak bic euh, mën a bind tur ñooyu bi mu bi ko borom boutique bi jaayee nag kaye ak bic ba pare dane ko nag ñi ngay ñi nga bëgg recenser def ma ci kaw mu nekk ci ñan mu nekk du du ay nitu yàlla nga bëgg a recensé euh, def ma seen tur ci kaw te mu leer kene boolewul woon euh, boppam maanaam boolewul waajoo ci lim bi waaye loolu moo tudd al ixbaaru bil xay bi ki la mën a nettali li nga ko waxul dafa mujj a bàyyi kaye ba parce que xam na ne ñi ko neexuñoo bind ndax ko moom boolew ci woon boutique bi te moom moo ko wax ne ko def ma ci kaw ndax may seen kilifa ku mën a réere kooku nag boo ne da ngay bind ñeneen ñi ci des dangay ngay nax sa bopp kon daal ka nga am xamal ka nga am rek waaye nag ku ne nga bëgg a lijjanti kaawam ku tam beneen jafe-jafe la moo tax mu ne aw zanna wasfa dalika alwaliyi min awsaafi rabbi wa nabiyihi alfatini bokk na ci liy yiir nit ñi ci euh, euh, xam nitu yàlla yi ak euh, bu doon xijaab mooy yonent bi wax ci benn xadis ne yàlla am na trois cents jikko képp koo xam ne melokaanaw nga ci ay melokaan di nga nekk waliyu yow nga bind trois cents jikko yooyu wala la nga ca xam teg ko di xaar nag ku rëpp maanaam ku répondre jikko yooyu yëpp même ko ko mel sax bu dajeeg yow du la wan ne ma maa mel noonu moo tax mu ne aw zanna wala mu foog wasfa dalika al waliyi min melokaanu yu boobu dal normalement mu ngi war a bokk min awsaafi bi ci melokaanu yàlla yi nga ne yàlla daal baax na latifu la yàlla rahmaanu la yàlla dafa baax yàlla dafa lewet yàlla dafa lii nga ne kon waliyu noonu la war a mel wa nabiyil fatin ak yonent bi yonent bi dafa modeste woon gis nga dafa wàcc woon daanaka ci ay néegu ñax la dëkkoon yonent bi ci ban rek la dëkkoon néegu ban waaw kon kii dëkk ci ay étage ay gratte kii du waliyu yooyu da ngay da lay daanal wa yaxjibu almanu kada alqabulu min alwara hadiyatan yaxuul bokk itam ci xijaab yi nga xam ne ni borom ibris nettali na ko mulaana xaj omar fuuti nettali na ko say xaj maalik tënk ko moo di ci xijaab yi yiir nit mooy sëñ boo xam ne loo ko laaj mu bañ loolu lañuy ñuy firi ci aada nit ku nay nga ne nag kii du wëliyu parce que nay gu metti gi sëriñ bi boo ko laajee ñaar téeméer sax mu bañ euh, jox la téeméer wala fanweer ñu ne kii du nit euh, maanaam kii du wëliyu parce que wëliyu dafa war a tabe parce que yonent bi dafa tabe woon lu mu am joxe ko te fekk na te jëliyaat yi du benn am na nit yàlla yoo xam ci xaabidu la ñuy tibbee xaabidu mooy kii ngëpp nga xam ne tabaarakallaahu du du fu fu mu tegu rek waa jooju mën naa bañ a def dara walla maaniu turu yàlla bi nga xam mooy tere nga xam ne ñi ñàkk turu woowu moo tax ñu ñàkk léegi nit yàlla bu dee te jël leen foofu la jugee kooku juróomi dërëm sax du la ko jox te pourtant wël wi la kaza naka noonu alqabulu di jël mi minal waraa ci mbindeef yi hadiya sëriñ boo xam ne yaxuulu day wër rek di ña di laaj addiya sëriñ buy wër di laaj addiya nga ne kii du waliyu parce que bu doon waliyu yàlla war na koo mën a jox loo xam ne nii du soxla lool kenn loolu yow sa xalaat la yow waaye nit yàlla daf ci am ñoo xam ne loolu ñuy def sax ndigal lañ ci am te mooy aktaab yi nga xam ne dañuy wër ci dëkk bi mel ni ku xaw a dese di laaj nit ñi hadiya fekk képp ku ñu jël ci yow dara loolu day doon tuxra benn raxas guñ lay raxas ci baatin ba nga set wicc mu tax bul gis kuy yalwaan rek nga di ko jànni wala nga gis tabaarakalaaw kuy wëndeelu di laaj addiya yor otoom fu ne mu dem fa naan addiya laa doon jël si nga naan ñii duñ dara déedéet donte ñi dul dara dinañ def loolu waaye bu fekkee wëli itam moo koy def fekkee xijaab la rek kiiraay la boo xam ne ci nëbboo nit ñi bokk na ci seen melokaan yi ñuy nëbboo wuquu zallatit bi man tazayya bi zayyihim qad yaxjubul xabiya Seydi Xaj Maalik nee na euh, nitu yàlla bokk na ci ni muy nëbboo mu jël benn melokaan buñ mën a tuddee ci jamono tey mannequin ni ngay duggee ci benn atelier tailleur fekk benn mannequin bu taxaw ñu solal ko ba nga foog ne nit la nitu yàlla moom mën na ko ci baatinam maanaam jël benn jëmm joo xam ne day niroog jëmmam te fekk du nit sax de léegi nag mu koy doxal mu mel ni daal benn rëbo en à distance bu ñuy doxal léegi nag rawaxaan boobu nga xam ne jëmmu sëriñ bi lay yore boo xoolee da moom la day wax ak a dox léegi nag mu def loo ko def joo jëf joo xam ne wala mu mel ko mel goo xam melokaan goo xam ne wa digg yàlla yow gëm nga ne wël yu warul mën a mel nii warul def lii warul wax lii fekk en réalité moom defu ko waxu ko waaye ñoom ñoo ci nëbboo nit bokk na ci benn waliyu bi Seydi borom Ibris wax Seydi Abdul Aziz Dabba benn waliyu boo xam ne dafa bëggoon tester ay taalibeem ndax dañoo bari lool te ñu xamal ko ci baatin ne ko kenn rek ay donn sa secret te deewam jege si na mu bëgg a xam kan la mu bàyyi ba saal bi fees del mbooloo mi ñëw daje këram taalibeem yépp mu jekki-jekki jël benn rawxaan solal ko yëre jigéen doon jigéen ju rafet joo xam ne nag koñ bi xamees na ko fi mais dañ koo xam ci dox tànku caaxaan mu amee nag mu rawxaan bi amee melokaanu kooku ñëw nag ci euh, saal bi naka la nuyoo ñëpp tiit ndax ñëpp ñu ngi war a jaaxle kii lan lay def fii kii nga xam ne nii la mel nii la mel mu gën leen defal surprise mooy dafa ne ana diw moom ki mu laaj moom mooy sëriñu ñëpp waaye waxul sax sëriñ bi diw la wax jaar ci turam ñooñu gën a tiit fi ñuy nekkee naankaan loo koy doyeg lool ki ñu jékki-jékki dégg bunt bi di ubbeeku te sëriñ bi gëj naa ubbi ñoom ñëpp ñu ngi toogoon di ko xaar mu ubbeeku ne ah kook du diw ñu ne waa ah, mën a dugal ah naka la dugg ñu déggaat sëriñ bi naan karaj karaj tëj bunt bi mel ni daal ñi fi nekk moom xool leen sax te sikk amul ci waa koñ bi xam nañ ndaw soosu ni mel ci jikko ak ni mu yàqoo Euh, rawxaan bi moom dafa dugg néegu sëriñ bi rek delluwaat doon rawxaan dem euh, ndax ñooñu ay euh, cër yu yàlla may nitu yàlla nit nitam yi la saal bi nag ni coow li bari ñu toog une heure de temps deux heures de temps trois heures de temps kenn génnul sëriñ bi itam ubbiwul ñu commencé jug par benn mais boo leen ñàkkee fayda man ñàkkuma fayda di wut si ku ñuy wax ne wël la muy fat ay jigéen nangam nangam ku wax li lu la neex génn dem keneen toogaat ab diir génn dem ñuy dem di dem ba xam ne jaadootul ñoom ñëpp ñu dem kenn naa fa des sëriñ bi bi mu demee ba déggatul kenn mu ubbi nag buntam ñu leen teg taal euh, kenn kenn moo ko dogaale mu gis saal bi vide mu ne taalibe anam mbooloo mi ñu ah, dem nañ de lu tax ñu dem waaw ah, dafa mel ni liñ gis xam naa moo leen jaaxal mu ne ci lan ñu nekk ndaw si fi duggoon mu ne ko yow lu la fi bàyyi mu ne ko dama xam ne man ànduma ak yow ngir jàppane ne yonent ga te yonent rek mooy maxsum mooy ku mënta def bàkkaar euh, mu ne ko lii tege lan la mu ne ko setala ndox la boo xam ne dama la ko tàngalal pour ragal ne boo ubbee di nga war a soxloo euh, ndox moo mu tàng pour sangu mu ne ko ah yow ak li nga gis yëpp nga di may toppaat mu ne ko déedéet man bi ma lay topp waxu ma ne woon yonent nga ndox mi daal mu ngi nii sëriñ bi kontaan xam ne kii lañ ko junjoon ci xëy bu mu dugal nag taalib bi ci biir néeg bi nekk kaay xool fii ndax gis nga fi jigéen mu xool xool ba sonn gisul dara mu ne ko man maa defoon tasarruf noonu ci sama benn rawxaan mu mel melokaan boobu pour ma déconseiller ñi nga xam ne yàlla indiw leen fi te jàppe ñu ma yàlla te itam wanoon nañ ma ci baatin ne kenn naa may donn xaw ma woon nag kañ la ndekete yow mii la kaay ñu dugg ma jox la secret bi ndax man léegi ma dem jox ko ba tarbiye ko mu yegg ci yàlla sëriñ bi soog a wuy ju boromam loolu ñoom dinañuy faral di utilise loolu nag pour nëbb seen bopp defe naa nag kuy nëbbu kuy nëbbu mën ngaa bañ a gaaw a feeñ ci public bi moo tax mu ne wuquu zallatin tabbik tarxiis wala euh, ñaawteef bi man tazayyaa ci koo xam ne dafa melokaanoo bi zayyihim ci seen melokaan qad yaxjabul xabiya dina yiir itam tabaarakallahu ku ku ku ku ku ku xàmmeewul waaye ci beneen prix dafa wax ne bu fekkee sëriñ bi nii mu mel yow dafa fekkoon nga gis keneen ku ko meloon démb ak bërki démb wala fi mu dëkk xamoon nga keneen ku fa dëkk waaye yii muy wax lii muy dex xamoon nga ku ko defoon ba pare kooku fi mu mujje ñépp xam nañ ko tax nga boole ñëpp nag ci benn bot euh, euh, bool ñu ñëpp a yem loolu da yiir te loolu dal nañu bari Euh, jàppe nit waliyu te fekk ka nga jàppe nit waliyu bandi la ba am ci moom choc euh, kooku doo gëmati ne keneen amati na koo xam ne waliyu la moo mu ne waqu zallatin tàbbik euh, tarxiis bi man tazayyaa ci ñu melokaanoo bi sayyihim nga jël leen def leen ci benn pot ni ñëpp a yem kat yax jubul xabiya dina yër ku xaw a manqué tuuti bokk na ci li ñuy nëbboo ba duñ leen xam nga gëm ne nitu yàlla piir ci àll ba lay dëkk dëkk ci néegu ñax day dëddu àdduna gis nga du dem dakaar du dem ci ville yi du dem Europe du dem États-Unis du dem fen day toog rek ci àll bi di jaamu yàlla boobu melokaan loolu ku ko gëm da nax sa bopp ndax yonent bi deful woon noonu yonent bi dafa demoon ci ville yi pour woo nit ñi ci wàllu yàlla waaye toog rek sa néeg dëkk ci néegu ñax buñ la gisee nga sol yére yu xottiku yëre yu bon am na ñoo xam noonu lañ jàpp ne wëliyu noonu la war a mel ba bu solee lu rafet dëkk ci étage ñu ne du wëliyu loolu itam xijaab la moo tax bokk na ci xijaab yi wa annahum nga jàpp ne ñoom wëliyu laysu bi sukkaanil mudun bokkuñu ci ñiy dëkk ci grande ville yi bal li fi nereet fil xifaari ci àll bi la ñuy dëkk nga jàpp loolu ne dañuy taxawaal di naan ndoxu eh, seyaan yi kullu zaaka yooyu yëpp ma xasun rafetul ndax bu boobaa ñoom it bu ñu la bëggee nëbbu foofu la ñuy nëbbu te loolu nitu yàlla yu bari léegi noonu lañuy ñuy dunde mooy dem ba ci grande ville yi tabax fa étage boo xam ne kaar ku ko gis bëgg ko di sol yére yoo xam ne ñi gën a riche ca dëkk ba amuñu ko te fekk lañ ci jublu mooy préserver seen wilaya ak seen cër ndax bu boobaa nit ñi duñ leen ko fooge ñu mën a préserver seen cër ba wuy ji seen borom summa almubaadaratu lil inkaari li izzatin wa satwati alqahaari dafa am wali yoo xam ne itam turu yàlla yu weex xat lañuy ñuy nan lu mel ni maaniu lu mel ni qaabidu lu mel ni qahaaru lu mel ni jabbaaru lu mel ni muntaqimu turu yàlla yooyu ay turu yàlla la waaye turu yàlla yu tàng la te metti nitu yàlla bi ci nan nag ba doyal dangay ngay ci moom dafa naxari deret day naxari deret dafay tàng nga ne kii daal naqari deret gu mel nii nit mënu koo nekk di wëli yu parce que yonent bi dafa neexoon deret dafa daan ree ku mu gis tàppa la waxanteeg lu baax kon kii du wëli ndax dafa naqari deret ndax jikko yi jikko seetaane la loolu dina yiir nit ndax même nitu yàlla bu xamee ne loolu nga gëm sax seen bari pexe tax na bu janoog yow mën na jéem a àbb melokaan yooyu mel mel lu ko fekk yow yaa tax de pour mu nëbbu la moo tax si xaj maa ne summal mu baadaratu topp tabaarakallahu gaawantu lil inkaar yi ngir weddi nga gis sëriñ bi lu lu ne muy diingat rek di diingat di naqari deret lu ne muy muy wax xataa même di saaga walla di wax wax yoo xam ni jàppoo ne ku yiw war na koo wax te fekk na ñoo ko tey pour nëbbu rek li izzatin ngir metti wa satwatal yi ak maanaam euh, maanaam euh, euh, wàccu turu yàlla bi ñuy wax qahaar wala tur jëmm ji ñuy wax qahaar dal gi dal gi muy dal ci ñoom ci leer gu tàng jafe googu def def ci ñoom loolu man gis naa ci koo xam ne dafa méttee métti ba jafe lañ ko woowoon jafe léegi ku mel noonu nga ne nag melokaan yi kenn mënu koo amee ba pare doon wëliyu loolu itam beneen xijaab la bokk na ci xijaab yi nit ñi di euh, réeree waliyu te loolu gën naa siiw léegi ci jamono ji euh, kaza taraddudu ila al muluki lil awni wal gawsi bila ufuki euh, sëriñ boo xam ne da ngay gis muy jaabante ilal muluki dem ci buur yi kaza taraddudu di jaabante ilal muluki dem ci buur yi minute bu jot nga gis tal tele gis sëriñ bi mu nga palais palais de la république mu ngi ci roi sàngam mu ngi ci ministre sàngam mu ngi ci député sàngam lil aw ni ngir ñaani fa ndimbal bu fekkoon sax dafa dem ngir jubale ay nit waaye dafa dem di sàkku ndimbal nga ne non kii mënu doon wëli parce que wëli bu toll nii di dem ci ay buur di sàkku ji ndimbal kii du dara wal xaw si wala mu dem fa di euh, di ñaan intervention ci benn taalibeem wala benn xaritam wala benn moom ci jëmmi boppam euh, ci ay jafe-jafe yu mu am nga ne non kii bu doon waliyu yàlla rek lay ñaan directement waaye du dem ci buur bi bilaa ufuki ci lu dul benn maanaam ay fen loolu dafay yiir nit donte dem ci ay buur car den bokk na ci liy euh, maanaam xijaab bi tax nit du yegg ci yàlla waaye man waxuma kooku ki yegg ci yàlla ba pare laa wax ndax Mawlana laa naa Hadj Omar Fouti radiyallahu anhu bokk na ci lettre bi ko yonent yi bindoon ci benn waa ju mu doon def loo xalwa nekk qul li omar fa innahu xalifati maa lam yuxaalitu salaatin waxal omar al fuuti moom mooy sama xalifa fekk jaxasoowul ak buur yi bu jaxasoog buur yi faqad xaana ni faqad xaana allah wa rasulahu war na yàlla ak yonentam ndekete kon nitu yàlla dem ci buur yi rek mën naa wàññi darajaam mën naa wàññi cëram waaye ta dàqoon teew la nag nitu yàlla bu bëgg a nëbbu mën nay jaabante itam ci buur yi ndax yàlla mooy digal wëliw bu ne lu ko sopp bu fekkee yàlla moo ne wëliw boobu demal ci buur sàngam ne ko nàngam wala demal nga sàkku fa nàngam kooku wax dëgg yàlla mënoo ko ci àtte ci nii wala tasawufim wala nga ne noo waa ji warul wër di laajte wala takashufin wala muy wër di bëgg xam dara koo xam ne fu mu toll mu ngi bëgg am ay information nga ne kii du wëliw wala tasakkuhin wala muy sikk sàkk ñu naan non kii bu doon wëli yu du am ay doute parce que war na am xam-xam bu koy informer wala ko foofu wala muy wër di ñaan di yalwaan ndax wëli yi am na ci ñoo xam ne lii ñuy nëb li leen di nëbbuloo mooy dañuy wër di yalwaan waaw koo xamee nag foo ko fekk boo amee lu baax sax mu ne lii bëgg naa ci de nga ne kuy kon du wëli wala nangam daal lay gëstu damay def ay investigation nga ne non bu doon wëli yu yàlla moo koy wax wala mu am ay dut ci nangam ah nangam di xaw ma nangam la wala nangam nga ne non kii du waliyu parce que loolu waroon na ko xam waata ko fi wala muy wër di yalwaan nga ne non man vraiment yàlla ëpp na di am euh, ku mel ni muy wër di yalwaan fekk déedéet njuumte la ndax am na ci aqtaab yi ñoo xam ne mën nañoo buñ la bëggee tester mën nañoo amee melokaanu yalwaankat ñëw di la yalwaan si boo ñàkkee teggin rek ñu dégrade la ndem amoon nga dara. boo amul woon dara nag moom doo mas a am dara yàlla ñu ci yàlla musal Seydi Xaj Malik nee na wayax ju bu mën naa yiir nit itam bil asbaab yi ci liggéey métier nit nitu yàlla boo xam dafa am métier di liggéey menuisier la wala tailleur wala cordonnier wala bijoutier nga naan noo kii bu fekkoon wëliyu la yàlla dina ko doy wëlis lii déedéet yàlla mooy def lu ko soob man xam naa benn menuisier boo xam ne cëram ci yàlla rëy na lool te boo ko fekkee ci fi muy liggéey ñi ñi defoon ci moom commande di dal ci kawam nankaan ah waxoo ma woon lii waxoo ma woon nii ki ko xam dangay ngay tiit fekke ñoom loolu mooy seen xijaab maanaam métier moomu wala sëriñ boo xam ne dafa ne ci lijjanti foo ko gis mu gàddu saagam fu ne mu jëm fa dëkk bu ne mu dem fa ne day tukki am yu muy lijjanti nga ne asbaab yii daal vraiment bu doon wali yu du man a mel nii waroon na fekk mu am lu ko doy ba du dem fenn loolu dafay euh, yiir nit ki nitu yàlla te Seydi Hadj Malick li mu fi bëgg jàngale rek mooy dafa bëgg a wax ne amul benn melokaan boo xam ne danga naan nii daal ñett noonu la wuli yu war a mel déedéet ñoom dañoo libre mën nañ nekk ministre mën nañ nekk buur mën nañ nekk tabaarakallahu député mën nañ nekk cordonnier amul benn couche buñ mënta nekk euh, euh, farfa am na ci benn wëli boo xam ne tabaarakallaahu euh, moom mbëru mbëru làmb woon nga xam ne ñoom ci cadre bu nekk mën nañ fa dem pour nëbbu rek ndax fu ñu xam ne buñ fa yàggee ñu feeñ mën nañ dem ci beneen cadre def mën na nekk sax ci benn métier ba nga xam xam leen foofu ñu xëy xëy jógewaat foofu bokk na ci xijaab bi gën a nag gën a gën a mën a sonal nit ñi Seydi Hajj Maalik nee na wa taswiru mooy imaginer sëriñ bi qabla liqaa lu jëkk ngay dajeek moom nga ne moom euh, nga toog rek ñuy wax benn waliyu nga imaginer xam ne xam naa nangami at la war a am xam naa nangam la war a xam xam naa boo ko gisee barbu bi dina war a toll nii sikkim bi day weex dafay yor benn kan dafay lii dafa melal ay melo daal ci kër gu mel nii la war a dëkk mbooloo mu mel nii ñoo ko war a dar lii boo ko jàppee léegi di gëm gëm nag image boobu gëm image boobu ba gis ka fekk mu ngi sol benn jean ak benn chemise toog di naan ataaya ci ay moroomam yow dangay am choc bu defee da nga man ki ma ki ma non ki ma tegtal kii daf ma yëpp quoi loolu sama sëriñ daan nañu ko jàngal benn waaye joo xam ne bu ñu ko daan misaalal day wax ne dafa dégg dafay jaamu yàlla pour yàlla wan ko bu zaman di jaamu yàlla pour yàlla wan ko wan ko xutbu zaman ba bés ñu ne ko boo bëggee dem euh, am xutbu zaman da ngay dem dëkk sàngam boo fa demee boo wàccee ca dëkk ba rek am na ku lay euh, ku kuy ñëw di ki ngay njëkk a dajal kooku mooy xutbu zaman bi euh, dëkk ba nag sori lool muy paas di dem di dem di dem ba wàcc ca dëkk ba mu ngi ca wàcc waxtu timis fekk xutbu zaman bi yàlla yëgal na ko mu déplacé wu pour dem jëli ji waa ji bi mu tegee bagage rek dafa teg ay saagam boobu sonn na poussière na jaaxle na da ko teg rek benn waay daw ñëw ne ndax ma jàppale la sa bagage bi mu ne ko bàyyil bàyyil bàyyil te xamul ne kooku moo doon xutbu zaman bi waaye melokaan bi kooku am ak melo dafa jàppoon ne mooy ñi ñi yenukat yi te waxoon nañ ko ne ki ngay njëkk a dajal rek kookoy xutbu zaman bi waaye xeeb gum ko xeeb ci melokaan ndax moom jàppale na ne kilifa gu mag la ku ñëpp di dar moom moo koy recevoir mais bi mu tegee saagam ki mu njëkk a gis mu naan kat ma jàppale say bagage daf ko jànni ah kooku nekk man dama la doon dimbali kon nag baax na maa ngi dem amaat na ay fan nag di wër ci dëkk woowoo ko laajte gisul kenn ba mu mujjee berwaat jaamu yàlla ñaan jooy yàlla xamal ko ne que pourtant ki nga doon ñaan moom nga njëkk a gis ci dëkk bi moom nga njëkk a nuyu mais yaa ko jànni mu ne ñu xamal ko kooku mu jooy ne kon man yàqu naa ndax kooko ma taxoon a jug ñaanaat yàlla ci lañ ñaanaat xutbu zamaan bi pour mu ñëwaat ba ci moom pour mu jariñ ko waaye jotaay bu ñaareel ba yàggul te neexul sama sëriñ nag daan wax ne kooku li ko rey mooy imagine jëmm te gisagoo ko boo imagine nag ca gisagoo ko la nga imaginer boo gisee melul noonu te mooy ñun li ñu miin garaam bu ba sol day yor kaan barbu bi day wextal day kaalawu dafay lii dafay laa mbooloo koy dar ñu koy zikkaral yooyu bu la nitu yàlla xamee ne image boobu ngay xaar ci moom bu ñëwee mën naa sol sax fulatan taxaw sa kanam yàlla na yàlla musal ñu ci xeeb nitam wa kaza wa hakaza naka noonu tawfiiru euh, baril ko ci ay kemam naan non moom xëy ku bari wërsëg lay doon ku bari wilaaya ku bari kii ku bari lii euh, yooyu boo ñëwee demewul noonu euh, daf lay daaneel Seydi Hadj Maay nag ku mu yar yi mën na la bañ a jaaxal ndax gis nga xorma bi mu yare taalibeem ak njabootam yépp moo tax sëriñ bi ne wa kullu gis nga façon yii yëpp imagination yeeg di ko xaar ci fenn fekk yooyu yëpp jëxlun réere la karamaatul wali karamaatil wali mayu mayu nitu yàlla ndax nit yàlla même yow image yi nga ko jox sax moom mën na avant muy dajeek yow cinq minutes mu soppiku ba mel neneen donte yow ni nga fooge woon ne noonu la mel mel na ko certes noonu la meloon sax waaye pour bëgg la nëbbu mën na bàyyi ba cinq minutes avant mu def tasarruf soppiku bu ko defee nga ñëw nekk diw laa doon laaj fekk na diw mi ngay waxal moom ngay laaj mu ne nag kon lii dafa mel ni kenn amul njàmbaar pour mën cee mucc kon fa laahu yàlla rek yu jiinaa moo ñu mën a musal mina tazalzuli ci rëngi-rëngi ba duñ daanu ndax nitu yàlla bi bi waa ji doon wër di ko wër pour xam ku ko yóbbu ci yàlla mu dem ba war a dajeeg nit yàlla bi mu jël benn bouteille sàngara sotti ko ci yére yi ba mu tooy xepp dese nag euh, li des ci tabaarakallaahu butéel bi nga xam ne xet gi kenn mënula la noyyi ndax xetu sàngara mu nuyoon nuyonteeg waa ji di tertere kooku amul ku ko mën a gëmloo ne kii mooy waliyu bi parce que nag wax dëgg yàlla même boo ko bëggoon gëm itam sa pas-pasu sharia du la ko may te moom naanu ko da koo pour xet gi euh, gàlla mu mel ni kuy terteri di la wan ne dafa màndi te dara dalu ko moo tay li muy def kooku bu la yàlla dimbaliwul xaw kaay kay nga ciy jot lii yëpp nag lenn rek lay firi ndekete kon wëliyu ku am accès ci moom rek yàlla la soob subhanahu wa taala waaye amul benn mérite boo mën a am yow pour jot ci wëliyu ndax noo ko war a foogee rek moom mën naa fële feneen Seydi Hajj Maalik ne kon yàlla nañu yàlla musal ci dengi dengi ak rëngi-rëngi bu ñuy mën a xañ nitu yàlla yooyu euh, wazir rujuz rujuz laa tafi bil gaaya lakinnama fi xifdiha al kifaaya nee na nag euh, way yi bayit néew na lool doyul dëgg sax indiwul lépp nitu yàlla yi ni ñuy nëbboo yëpp indiw ko waaye doy na ci daal boo ko mokkalee rek doy na sëkk ndax lii ku ko mokkal di nga xam ne kon ndekete nitu yàlla yi kenn xamul seen mbir waaye daal xijaab bi ci gën a for mooy jàpp ne ñoom dundatuñu loolu moom dal nañu bari ñu nga gëm ne rek ñoom comme ñu mel ni ñoom amatuñu fi te loolu njuumte la hada huwa tawfiqu min indillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi